arbitre sifflé na diggante Weuz Diambar moo ñëwoon ginnaaw def gem noir ak xam ne ndeysaan moo di Radiakhé tey di la 28 janvier 2024 fii ci Dakar Jël Diop waaw waaw gaal gi bu xaar waaw waaw di ziar ndeysaan Souleymane lii moom a jëlee Mbour tey ba Ndakaaru jël jóg yor ma añ jëndal ma presse a ah, jëndal ma ndox yaraax yi kiri yaraax la ne di ziar ndeysaan Assane Sène doomu jaare ximaali di ziar waa Jooral waaw Ibrahima Ndong ak nga xam mooy Baye As bégg naa leen mama Ndeye Dior maa ngi koy kontaane ndeysaan waaw waaw yar Linco Global Business Service nee naa la képp ku bëgg wàllum terrassement wala lotissement wala transport wala béton wala suuf jokkool ak Linco Global Business Service mu nga tëngeeñ ndeysaan mu def jëflanteeg yow Sall Ngaari woote na le 4 février ba nga ne mooy sa arène Adrien Sangomar Yofim la woote nañ le premier ba le quatre waa Soul woote le cinq ba ba le cinq ñëw na jël na ko daje nañ rajo xee jàmbaar rajo xee wës jàmbaar rajo xee kay jéem a songale ko mu wëlbati ko laal ko mboot tourné waat de service arrière si bëre la Zoss Diambar daan na la joxe waaw waaw